bu demee Amérique Amérique ubbil ko réew may ko kay may ko lepp moo leen tuddee hijratul uquur hijratul uquur tubaab bi li gën a bari ci seen boroom xam-xam ni dekkuñu fa bu ñu gisee yow borom xam-xam nga dañ seen réew may la kay nga ñu dëkk ci seen biir réew bu ëllëgee loo defante duñu wax ne kii sénégalais dañu wax ne américain la waaye ñun Afrique nag ak li gën a bari sax ci réewu arab yi. ñun ñooñu la ñuy xeex borom xam-xam imam si dama sama nettal benn borom xam-xam boo xamante ne waa Mali la yàlla mayoon ko ci wàllu biddiw yi nii tey jii mu nga naa sax mu nga amee mu nga amee jàng na ba pare ñibbi si ba mu ñëwee Mali ñu di koy xeex di koy koñe kii dafa bëgg a ñëw tegu suñu kaw li yegg ni ñeeg bi mu jëlaat paak borom ñibbi waat après dem dem amee ba mu yëggee ñu ubbi ko jëndal ko kër jox ko jox ko salaire am ne ko soxla ci yow dara sa xam-xam rek na génn sa xam-xam rek gis nga réew bu la gën a fonk xam-xam rek ngeen laa développé waaye réew mu la gën a jël xam-xam delloo ko ci gannaaw rek ngeen laa dellu ci gannaaw moo tax Sénégal ci kanam boo moytu ñu am problème parce que tey jii da ngay gis ministre bu waxul pare ñu ne dafa am faute ni mu waxee wala lim bi li baaxul kan moo ko ñëwoon ci jamono ñoom seen moom te ñëwoon kon xam-xam dafay gën gannaaw fi ñu toll fii ci Sénégal nañ ci góorgóorluwaat ñu jàngaluwaat suñu doom yi boo buggee sa kër développé fexeel ñu jàng boo buggee sa waa dëkk développé fexeel ñu jàng boo buggee sa réew développé fexeel ñu jàng moo tax mu ne ko amadaku bi maa taalamuuna moo leen doolelee jox leen capacité ci seen xam-xam tubaab bi rawee ñu lu dul xam-xam kese gis nga Afrique li fi nekk amul ci beneen continent am na jama am na pétrole am na ndox am na naaj am na ay nit xam nga leen ne moo fi manqué mooy xam-xam ak xel xam-xam moo fi manqué comme amuñu ko lii moo tax yeneen continent yëpp tegu ci suñu kaw waaye ñoo xam nañ pétrole kenn pare ñu pétrole li nekk ci Nigéria pétrole senegal li fi nekk ci pétrole li fi génnee nii ci réew mii senegal ci jamono yi li ñu wax boo fi nekk ci pétrole Arabie Saoudite ëpp ñu pétrole pétrole dëgg moo fi nekk moo noonu waaye dañ def beneen erreur mooy commencé rek jël ay nit ñu ñëw di koy kii dañ waroon dem jàngi te jaguñ ko dem jàngi ci la ñu mën a jëriñ waaye gis nga bu ñu ko defulee nii nii ñu ko jàpp dañuy ñëw root ko yëpp yóbbu ko ana suñu or or bi xoolal ñu fa nekk dañ ci gëstu ay avion ñooy jóge ba ñu wàcce si ñu ko yóbbu seetal ma kon il faut ñu delluwaat ci xam-xam gis nga xam-xam ci lan la ci ngay xamee li nga war a def ci ngay xamee li nga moom ci ngay mën a utiliser tey jii nii boo jëloon téléphone bi tegal ko mbaam lu mu ci mën mën na ci tus dëgg la nga ne mbaam bi yow laa ko may du tax mu jëriñoo ko voilà mu ngi kon il faut que ñu xam. ba tey yàlla moom muy soog ne kamasali himaari yahmilu asfara neexul a wax waaye ah, il faut moo tax il faut ñu génn ci suñu lëndëm bi ñu nekk ñun dañu teel ci njaam nit ku ñun dafa teel ci njàng dañu teel ci njàng gis nga fa ñuy dem ci Europe ku fa dem nii sax ne da ngay dem uti xaalis boo yeggee il faut ñu dugal la ci seen école yi pour wala ñoom fooy wuñu ko laaj la ñoom ñuy dem. bu demee il faut ñu dugal ko ci seen école mu jàngagum ba pare moo tax ngay gis ku demee ne ko bindal mu ne que damay jàng te fii forcé nga ba bëgg dee boo ko toogloo bi bëgg koo jàng te mu ne ne asamaan ma ne pas joto bi xool it. ah mu ngi noonu xàkk na mu ngi noonu xam farata nga xam-xam mooy yóbbu nit mooy kawe mooy développé nit moo nañu dellusiwaat mu góorgóorluwaat ci xam-xam. nañu jànga nañu bàyyi teyal gi ci xam-xam tubaab bi kenn ku ci nekk ak loo màgget màgget am na téere booy liir bés bu nekk nga am ci benn safa ñaari safa te ñaar téere boobu ngay liir ñun nag boo amee ñeent fukki at wala boo amee ñaar fukki at rek nga ne léegi mag nga jaar doo jaar nag moo tax da gis ñoom ñoo ñoo dañuy dem ba mag bind li nga xam ne mooy seen jaar-jaar bind li nga xam mooy seen jaar-jaar bu ko defee xale yi ñëw ci gannaaw mën a jël loolu repère xool ci mën a xam ne diw sangam bii de jaaroon na fi jaaroon na fi kon bu ma moytoo lii dina baax bu ma defee lii dina gën a baax. moo tax il faut ñu delluwaat ci xam-xam suñu réew mi fii ci daara ji nag dañ ci gën a bàyyi xel dañu xaw a teel trop trop ci njàng. waaw dañuy gaaw a bàyyi njàng gis nga ko te dañuy tayal ci njàng diir biñ ci def dafay tuuti xam-xam moo yóbbu réew mi ba tax mu ne amadakum bi maa taalam amadakum mu doole leen gannaaw bi ngeen xamee bi anaami gàtt yi ngeen mën leen a jëriñoo wa ba nii nag ngeen mën a xam ni ngeen di réglé itam seen lan seen seen seen peuple bi yenu kese opinion bi ngeen mën a xam wa ba nii nag ba nii mooy mbooloo rek moo tax ñoom dañ bëriwoon armée seen armée du xëy bu ñu taxawoon rek ñëppay doon armée ñoom ijbaar yi la woon nit ku yaafuus bëgguñu ko fa nit ku yaafuus koo xamante ne teguwul ci lenn amul métier amul tus xamul dara ñoom dañ ko doon rey même bu fekkee ne bàyyam jur na ko sax mu ñëw gis ne kii nii dafa am laabo wala am yii nii dañ leen doon rey parce dañuy wax ne kii mënul jëriñ moo tax ñoom dañu dañu amoon capacité bari woon doole nag macha allah góor ñi ak jigéen ñi ñëpp nag góor ñi. ñépp ñoo doon téye ngànnaay kon ilmu jiitu lan a ñëw an abi ba nii na ñëw wa jannaati ak ay tool wa uyunin ak ndox moo tax mu ne dañ amoon ay robinet ci seen biir kii ndox mi ko jaar rek gis ndox mi macha allah tool yi xam-xam moo koy def demal Europe da gis ko am diplôme muy meñ gis ko mu am ay kii ay étudiants dañuy defar meew bi nii dama jàng ñun nag ko jàng fii tuuti sax xëcc xëcc ban bureau toog subhanallah il faut ñu boole ñaar yi nag bu ñu bëggee suñu réew dem ci kanam pour wal la ne yonente dafay ñëw pour réglementer maanaam pour régler situation Seydina Hud dafa ñëw fekk ñi développé nañ am nañu alal am nañu armée bu baax am nañu ay luwa yu baax am nañu réew mu kawe am nañu lépp waaye lenn moo leen manqué mooy wéetal bi nga xamante ne moo ñàkkoon ci ñoom ci wéetal yàlla mu ne man de axaafu aleykum damay ragal ci bu rëy boobu ànd ak mbugalam damay ragal bés boobu noonu keroog ngeen perte foofu la lay indee problème parce que gëmuñu bés boobu comme tubaab yi tey jii xam nga léeg-léeg xel dafay nax boromam xel baax na trop waaye léeg-léeg dafay nax boromam tubaab yi dañu xaw a toll foofu mooy lu ñuy jàng jàng waaye boo leen waxee àllaaxira moo tax Voltaire te pourtant moom mag la borom xam-xam mag la ci France bañ ko laajee ne ko waaye yow yomal kiyaamati nag loo ci wax yomal kiyaamati maanaam àllaaxira xam nga catholique gëm nañu àllaaxira ñu ne ko waaw àllaaxira yow loo ci wax ndax gëm nga ko mu ne loolu bés bu amee kon mu xam ne réussir waaw <laughs> mu ne bés bu xam ne loolu kon réussirul boobu parce que mu ne looy def defaat mu ne dafay wane ne kon bu njëkk ba baaxul looy def di koy defar dafay wane bu njëkk ba baaxul waaye boobu bu baaxee du jar du jar takaraat boo solee dàll dàll yi baax na boo solaatee yeneen dàll ci kaw mu ne nu moom àdduna daf lay moom yooyu ay yëfu la te xoolal xel bu mu amoon àllaaxira xel du ko yóbbu ngëm moo ko yóbbu waaw moom nga koy nangu parce que ki ko ki ko def mooy yàlla ki ko def mooy yàlla moom moo ko def jox ci nag ay argument ne gis ngeen ni garab yi di dee di saxaat yéen noonu ngeen di saxaate kon ñun loolu la ñuy gëm la rek parce que gis nañ ñu fi nekk te nekkaatu fi waaye yàlla nee na da ngeen ñëwaat nag kon moom bu fekkee noonu la programme dañ ko war a nangu problème bi moom mooy ndax def na ko wala defu ko parce que am na lu mu bind muy benn yoon rek masalan nag yi xam nga dañu dekkiwaat te yi boo jëloon xeer ca montagne ba ñëw jëmbat ko xam du tax mu sax te boo jëlee dugub jëmbat ko sax. kon neex na yàlla biy jogaat neex na yàlla biy jogaatul kon yàlla dafa namoon pour ñun mu dekkilaat ñoom loolu xel mënu ko dab koy dab mooy ne yàllaa ko wax kon dina am boobu te boo ko tegee ci xel xel war na ko mën a nangu parce que mu ne gàncax baa ngi nii deewoon na te génnewaat na ko kon ñun war nañ ko mën a war a mën a gémmoo waaye nag léegoo-léeg boo ko tegee ci xel rek doo ko gém moo tax ñoom gémmuñu ko inni man axaafu aleykum adaaba yawmin foofu mooy problème muy moom gëmuñu àllaaxira te xam nga jëflante ku gëmul àllaaxira kooku neexul xaalu ñu ne ko yow Huud sawaun alayna benn la ci ñun awa asta nga nekk fii di ñuy na am lam takun min al waa'idin wala danga ne patt toog di ñuy xool faale wuñ la mooy li la mooy ñoom dañ gëmoon ne nit warta imposer nit tubaab yi tey jii nii sa doom boo xam ne du mat mu kàllaf ko neex def amatuloo ci moom benn orla amatuloo ci moom benn kii li mu def moom la ñoom foofu lañ yeggoon ñoom tamit mooy ne nit bu majoré na seet lu ko neex lu ko doy mu def l'essentiel mooy ne loi bi mu ngi fi bu mu jéggi bu mu tooñ waaye biiru àllaaxira rek kooku suñu yoon nekku ci inna haada gis nga lii ngay wax yow huut illaa xuluqul awwalin bul foog ne xulóog nag mooy jikko mooy axlaaq déedéet du boobu ilaxtilaaq mu da koy jàng ci luxa il faut nga delluwaat ci luxa ixtilaaq buñ la waxee ixtilaaq mooy sos in haada gis nga lii ngay wax illaa nekkul lu dul xulu lu ñu sos la al awalina ñu namm ci nuuhi nuuhi nag ñoom Idrissa parce que ñoom ñooy ñoom ñooy ñi leen jiitu yooyu ñoom ay ay sos la maanaam ay fen la illaa xulukul awal loolu ay fen la mag ñi ñoo ko fi fent rek di wax naa ne bu àllaaxira nit dana dekkiwaat àllaaxira amul fen te saw maa naanu bi muazzabiina ku am kattan fooy jaar dañ ñoom dañ waloon seen bopp moo tax mu ne man ashaddu minnaa quwwa mun lañ jàkkaar man ashaddu minnaa quwwa kan mooy ki fi ku ñu ëpp doole comme Amérique tey jii Amérique moo doole ah, lu ko neex def lu leen neex def kan moo leen ñemee attaque ku leen ñemee wax dara ñoom foofu la ñu tegu woon nag ci seen loolu mu ne ndax kan mooy ki ñu mën a mbugal amaanaa ne waa Ndeye ñun kenn dañu mbugal waaw kenn mënu ko kenn amul kattan boobu parce que itam ay millions yu millions lañu woon dëkk bu ci nekk rek lu nekk teew na fa maanaam dëkk la woon daal boo xamante ne réew la woon boo xamante ne dafa développé woon mm-hmm. diggante ñetti xaar yi dañ ci tegoon seen loxo. man man ko ci wàllu armée ci wàllu ndox ci wàllu béy ci wàllu xam-xam ci wàllu technologie lu nekk ñoo ci féetoon ci kan moo tax ñuy laaj moom maanaam wax a bëggoon kan mooy fakkat la yàlla nee na leen waaye comme yàlla dafa bëgg lu baax xoolal diir bi mu toog ñu ne presque ci seen civilisation am nañ ci ñii ñu ne onze mille ñii ñu ne huit mille xam nga suñu diggante instant ba léegi deux mille la suñuy diggante instant ba tey jii ne deux mille kese la deux mille vingt ci ren wala deux mille dix-neuf boobu ci lañ toll nii ñoom nag am nañu seen xadaara boobu noonu seen technologie seen réew moomu noonu loo xamante ne mat na onze mille ñii ñu ne huit mille kon xam nga loolu yàgg na ñu nekk ci seen doole rek nekk ci seen man-man nekk ci seen kattan nekk ci seen développement mu mel ni yàlla mooy ne lu baax yi daf koy soxla waaw parce que ñoom la ñuy mel mel noonu yëpp waaye mënoon nañu liggéey ba liggéey nañu seenu réew kon mel ni yàlla dafa bëggoon rek seen jikko yi wal bate ko boo ñëwee di ko ne àllaaxira amul fa ahlaknaahum nee na ma anak leen xoolal fii yàlla saboté wu leen lu dul ne lam leen defal ci teraanga gëmuñu bés àllaaxira kese loolu la wax ñoom ñi nekkul ne yàlla def leen saboté comme kaw mu luute kaw mu luute xam nga dañ doon def lu bon yaatuna zukraa boo demee ilaa madiana gis nga ko ñoom dañ doon jël gis nga ko mu tafi fii na wala tabaxasul kay la mm-hmm. wala déet boo demee ci ñëw ñoom na gis nga ko dafa jëloon ñee di leen di tooxal def leen ay jaam di jaamu ay xërëm ñoom yëguñu ko jëluñu kenn mooy yàlla gémuñu ay yàlla moo tax ma ne la gis nga ni tubaab yi tey jii nii presque noonu lañ ñoom gémuñu ne diw sangam yàlla la comme fi raw ni waxee ne yàlla la gémuñu ko te itam duñ jaamu ay xërëm yii nii léeg yooyu xamuñu ko ñoom seen problème lan la woon mooy ne allaaxira moom amul allaaxira amul allaaxira amul moo tax fa kasa boobu ñu weddi ko fa ahlak na yàlla nee na ma alak ma sànq leen kon bu fekkee ne Seydina Huudin jog na fekk ñoo xamante ne dañu bàyyi yoon am doole nag am kattan mu ñemee taxaw ak fitam ne leen déedéet nii ngeen di def du noonu waye na ngeen wëlbati na ngeen di doxale ak ñoon ni ñu amé won katta kon yow Muhammad da bo ñewé tey jii ni fekk quraish ñepp respecté la comme ñepp nu ñu respecté won hudi parce que amon na xam-xam amon na manon na xeex manon na métier man lepp lu ñoom ñi man mën rek loolu mënoon na ko dajal won na ci parce que itam dañu gëna manki bobu wa dañ rajulun minkum loolu bu mu leen yéen man ma doon nit comme yéen man li ngeen man ñoom ñu nag yoo amuloo droit dañuy imposé te pour pourtant yàlla defa def nag yonente toujours nañ koy topp Seydina Muhammad noonu la ñëwee màkk fekk leen ñoom ñëpp ci réer mu ñëw nag pour gindi leen ne leen déedéet du nii ñu respecté ko parce que amoon na alalam Seydina Muhammad amoon na alal ci biir màkk amoon na juddu ci biir Makka te kenn yabu ko am na fa soxna am na fa njaboot kon lu waa Makka di am rek Seydina Muhammad am na ko moo tax keroog ba mu waxee ne yonente laa jëlee ko yaa ngi yàq nag parce que fi la tegoon yaa ngi yaa ngi ñu ngi a téegi Seydina Muhammad bu nekkuloon yonente ko wax ñëpp a ko respecté woon kenn ña ma ko wax nag waxoo waaye keroog ba mooy yàlla ma saabi kon Seydina Muhammad bu fekkoon ne melul comme huudi nga xamantene ñëw na ñakul dara ci bir ay bokkam waye waaye wëlbate bu gis le ñi bay yoon mu ne len du fi kon Muhammad sayyidina Muhammad tam du ko def ñëw fekk ay bokkam lu mbokkam di am am nako lu kilifa demé ci bir Makka mel nako ñëpp respect ko bu continué rek ànd ak ñoom ñoom dañ koy respect kenn du ko wax dañ ko saaga dañ ko sax dañ koy jox respect parce que ci bir Makka gis ñu kenn ko xamantene tollu nako moo tax keroog ba ñëwee ci Abu Talib ne dañ bëgg nga jox ñu sa doom ji pour ñu rey ko nga remplacé ko kii dañ indi koo xam ne dafa rafet am juddu am lu nekk ñu ne ko jëlal ki léegi nga jox ñu Muhammad ñu rey ko foofu daal yéen a ma jox leen sama doom ngeen rey ko ngeen ma seen doom may yàqal dégg kon bu mel ni Huudin ak Seydina Muhammad dañu niroo moom tamit dafa ñëw fekk ay bokkam lekk ci lu ne mu ñëw mu ne leen déedéet du fii Seydina Muhammad ñëw yi itam ñëw fekk leen ci foo xamante ne du noonu mu ne leen du fii moo tax inna fi dalika nekk na ci loolu la ayatan mandarga ne yow yonente nga boo jàngee te say huudin rek nga xam ne yow Muhammad yonente nga waaye wa maa kaana nekkul aksarum la gën a bari ci ñoom mu'miniina laa yattaquuna la wala yuteewna la yàlla yàlla te du ñu roy ci yonent ñun royal lañ a roy ci bàyyiwaat xel bu baax a baax sa doom ko mu ci mbër di doxee comme yi di soloo comme ñoom di doxee comme ñoom waxuñu mu ci musicien yi di soloo comme ñoom di doxee comme ñoom di waxee comme ñoom ci yonent yi la ko yàlla wax roy parce que ñii ñooy référence yu baax yi ñii ñooy référence yu mat yi xamuñu lu bon xamuñu lu ñaaw loolu yiw rek la ñu xam moo tax mu ne fa taqullaa waati yoon yéen sénégalais na ngeen ragal yàlla te topp yonente yi te bañ a topp bi digsee inna rabbaka sa borom nag laxoo mooy ki nga xamante ne al azizu ku am fayda la te arrahimu ku bëri yërmande la kon ku am fayda ku am fayda wuykat du ko yóbbaale arrahimu mooy ki bëri yërmande mu dem ci samut وإلى ثمود أخاهم صالحا كن كذبت ودنا ثمود غير بني ثمود المرسلين نيوم تم يونتي نيو فن لول بن مشاد بلا بليك موي كو فن لو يونتي بي بنين يونتي بو ني لول لاي واخاندي بو وادي كو يودي موتام ني مرسل إذ قال لهم بنا خمنتنا وخنا لين أخوهم سين بوك صالح نبي الله صالح ala tattaquun diyaari Samud nag mooy fii Arabie Saoudite diyaari Samud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko doon romb comme yeneen saxaaba yi mu ne leen ala tattaquuna ndax du ngeen ragal yàlla même message bi la boo continué ba tey jii ci suñu réew mi ala tattaquuna jotul amuloon at boo xamante ne fii asamaan yi bañoon at ne du tax lan la ñu wax gouvernement ak ñëpp taxaw ne nañ tëj baar yi. voilà commencé seet la wala déet. ala tattaku wéeru bi nii gis nga balaa ñu wax ne suba mooy wéeru koor am na benn ndaje bu ñuy def ah collectif Sénégal yi kenn xamul ban façon la xamuloo noonu leen di àttee collectif ay micro di tibb di leen di la ñu ne ah xam nga wéeru koor da ngay sellal rek kon balaa ñuy dugg ci wéeru bi rek waaw. comme yow da ngay dem sangu ji léegi nga ne da ngay dem sangu ji da nga war a tilimal sa bopp yal na yàlla di yërëm benn message bi la mboolem yéen tey bañ jeex ala tattaqu na rek daa dina ragal yàlla inni man lakum ñeel leen rasulun yonente yàlla la aminun te naxuma leen xiyaana bokk ci mm-hmm. parce que min sifatil ambiya al amaana kon waruma leen li amoon laa leen di wax naxuma leen fattaqullaha na ngeen ragal yàlla bu ngeen wéetee te wa at yoo ne bu ngeen feeñee ci biti roy ma ngeen mën a mucc te mucc googu noonu moom rek moo leen jig nag ndax nit moom safara moom jigu ko wa ma asalukum même message bi laajuma leen alay ci lii may sekk ak yéen min ajri laajuma leen payoor mu wuteeg woykat mu wuteeg woykat nit ñuy jàng ni alaaji maa def ñu laaj dara imaam fi def ñu laaj de te lan la ñuy wax du alquran lan la ñuy wax du sunna boo jógee jëriñoo ko demal nga bëgg a dugg ci boîte de nuit dañ ko fekk ponkal boo xamante ne mat na la ñett taxaw ci buntu doo dugg defee. wala de kon bokkuñu bokk kii yàlla lay waxal kii nag seytaane lay waxal lan mooy li ci gën a yéeme nag mooy yàlla feekuwul ñu bàyyi ko ay bagaasam yu baax nag iblis moom bagaasam dara baaxu ci tey feyeeku nag tey jënd rek gars yi dañuy jënd rek dañuy dem ba mu fees marchandise la ilaha illallah moo tax yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na keroog rajaan ba yàlla def ma wax ne ah man de doomu adama jaaxal na yàlla ay wax de mu ne keroog yàlla def ma jooytu doomu adama ne doomu adama dafa am problème ak iblis man ma ñëw faral ko mu wol ba da ko faral iblis man ku la mooy wér gu yaram noy bi ngay noy yi rek est-ce que mën nga koo fay li nga ndekkee tey jii nii est-ce que mën nga koo defar ku mën a defar dugub farine bi nga xam ne moom lañ defaree bi ku ko mën a defar bi nga omelette. ndox ndox rek bu ñu ñëpp war a yóbbu. ndox bi rek xakkata ku ko mën léegi nag nga pare nag jël sa jëmm jooju noonu bu dee yàlla nga ne ko faalewuma la te bu dee caaxaankat yi. nga dem ca nag yu jeex jaral na la lu ne moo tax yonente yi ku ñëw rek mu ne fa takkul naa lii mooy message bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam gis nga kaw mu aadin dafa am na ñu il faut ñu bàyyi ci xel def ci attention ci saar bii nii gis nga kazabat kaw mu nooy kazabat aadu kazabat samuudu fa mu waxee kazabat yi est ñun bokkuñ ci. Ah, parce que la ko waral mooy ne bu yàlla woote ak bu iblis woote subhanallah ak bu ñu gisee wootekatu iblis yi xale yu jigéen bu ñu gisee woykat yi da ngay gis ni ñuy tebe àndam na seen sax subhanallah yàlla nee na fa taqullaa ragal leen waa at yoon te topp na ngeen mel ni yonente ngeen yonente bu dee woykat na bàyyi na moom mel te bu dee yow mi nga xam ne yaay fansi bi bàyyi loolu am bi kon woykat duur ku ñuy roy loolu la yàlla di wax fii parce que waxul ne taqula wa atiyu shuara wa atiyuni man yonante bi hmm. na ngeen ma topp man wa ma asalukum alayhi min ajrin laajuma leen payo in ajra illa ala rabbil alamina tiyaabu rek laa ci yàlla rek moom mooy fay wóor ba te itam di leen di wax di leen yàlla defal ak ñoom li ñuy def atutrakuna ndax da ngeen yaakaar ne danañ leen bàyyi fii xaagu na fii ci kaw suuf aminiina du ngeen loolu da ngeen ko foog atutrakuna da ngeen yaakaar ñu bàyyi leen aminiina dee du leen ñëwal feebar du leen ñëwal sukuraat du leen ñëwal fii ma xaagu na fii ma fii ci àdduna ngeen nekkee fii jannaatin ci ay tool yu neex tool yu naat wa uyunin ak ndox bu neex ak ndox bu sell wa zuru'in tandarma yi fii raisin bi fii dugub bi fii mboq bi fii gerte bi fii wa naxli tandarma yi talonha hadimu nga xamante ne bu juree rek macha allah neex na ci biir ndax da ngeen yaakaar ñu bàyyi leen fi rek ngeen di dund ci neex na rek watan xituuna ngeen di dem di lees bu yutan ay néeg yoo xamante ne faarihiina néeg yu neex lañ ci biir minal jibaale ci montagne yi eeru tàngoor doo yëg eeru seddaay doo yëg daal parce que bu dee eeru seddaay la dafay nugg ci biir bu dee eeru tàngoor la dafay sedd ci biir kon mooy ñu jamono bi rek nga nekk ci sa biir kilim bi wala ci sa biir ventilo bi faarihiina di bànneexu rek ndax da ngeen yaakaar ne ci loolu ngeen rek ngeen di continuer fattaqu الله ragal leen yàlla te jóg dem defi ay farata fattaqu llaha ragal leen yàlla te bàyyi bakkaar yi te wa atiuni jéema mel ni man roy leen ma parce que pour ñu roy ci yonente yi dafa tànn alayhi salaatu wasalaam dafa tànn ci biir nit ñi ñoo xamante ne ñoom la jël def leen ñooy ay référence mu tudd ko ci Seydina Ibrahim tudd ko ci Seydina no tudd ko ci Seydina Houdin ci Seydina Nohin ba ci Seydina gis na ko Seydina Salih mhm. wala tuuti yow te mu ne bu leen topp amral musrifin ndigalu ñii nga xamante ne yàq rek la ñuy def musrif yàq kat wala tuuti yow bu leen topp amral musrifina mbiru ñi nga xamante ne yàq rek la ñuy def alladina ñoo ñu nga xamante ne si fil ard dañuy yàq ci kaw suuf rek wala yuslihuna te duñu yewe na ñan la tey jii ci jàmm ñan la yàq xale ku leen di naan lu doro xale jigéen ñi lan moo tax ñuy yàq seen bopp yi hmm? subhanallah yufsiduna fil ard yàlla ko wax de bu leen topp yàqkat yooyu alladina parce que mil melokaan la sifa la bu nekk ci ñoom ka ca Amérique ak ka ca Sénégal benn lañ ñoo yàq yufsiduna fil ard ñoo yàq ci kaw suuf wala yuslihuna luñ fi yéwee lan lañ fi def su kay tamit ñu ne la am na am na am na télé boo xamante ni ñu ngi ko génnee gis nga dafay génnee xibaar musique a ko tax a jóg bu ñu amee rajo yoo bu ñu amee journal lépp lu ñu manti am caaxaan rek mu leen tax a jóg super étoile kan moo ko moom woykat yi ñoo ko moom woykat yi ci dara dara dara loo xam danañ ko defar pour lu nit ñi di jëriñoo yàq rek lépp luñ fi def ci lépp lu ñuy investir rek loolu yàq la gis nga ko sama xarit la ak diw bu dafa dañ leen sa ay waliyu amul ko fi deewoon yóbbu ko Tuuba ah, gaa yi demoon ca màggal ba sax dégg naa ña fa ña demoon ziyaare ko ca kabru ma moo gën a bëri ah, ñi nekkoon ci kabru suñ fàllu ma moo tax yàlla nee na wala tuuti bu leen topp amaram mbir al musrifiina lan la ñuy digle ci seen woy ñu bari ci xale yi dañuy déglu musique bi di fecc waaye bàyyi ñu xel parole bi parole bi dafay jar di bàyyi xel Madonna te du ma def woyam boobu ne ne a ah, cheytaan al batal ne cheytaan mooy jàmbaar mooy guerrier bi ci kaw suuf cheytaan cheytaan moo man ñëpp Madonna moo ko Rihanna te du ma doon tàgg iblis moo doon tàgg iblis seytaane ñoom ñu jógee satana mu di koy tàgg kon ñoom iblis lañuy tàgg bu ñuy digle itam ay affaire yu ay affaire yu yow rek la ñuy jàng seen woy mbugeel rek la ñuy jàng xale yu a xale yu jigéen ci lañ ne yàqu kon yàlla ne wala tut yoo am ren musrifina bu leen topp ndigal ñi nga yàqkat lañ alladina nga xam yufsiduna fil ard ci kaw suuf yàq rek lañ fiy def wala na amul lu yeween lu fi taxaw ñoom ñu participer ti amul say suñuy participer rek lu bon la fu xale yi di yàqu rek la waaye fu nit ñi di baaxee mas nga gis ne école bi ñoom ñoo ko def hôpital bi ñoom ñoo ko def mas nga ko dégg mas nga ko dégg ñoom duñu duñu liggéey ci lu baax du moom rek la ñuy liggéey te itam buñ koy def itam sax yooyu ñuy tudd noonu dañ koy mbubboo rek waaw na waayaa xasana safira kaza wa kaza yooyu yëpp dañuy mbubboo rek waaye dañuy yàq rek yàq rek lañ fi nekk xaalu ñu tontu ko ne ko innama anta mi minal musaxarin yow dañ laa njabeer de danga dof musaxarina mooy sihiru mooy yow dañ laa njabeer nam mu ci rek maanaam danga dof dañ ko liggéey masala mooy dafa dof waaye kalimatul mu saxaar nag seetlu ci woon dañuy firi tam bind ay inamaan ma yow nit nga comme ñu ah, nit nga comme ñu loolu lañ koy tontu nit nga comme ñu xatte daal kon génnuñu nit kese nga xam nga léegi-léeg nit wax ko nit wax ko waa nit rek la wax nañ ko yenente parce que dañ gis ne kii dafa bugg a kawe jikkoom dafa bugg a kawe ñoom ñu bugg a bugg ko woon nag ne ko nit nga bi léegi comme ñu moo tax discuter ak ñoom sax duñ faral di yokk bu wéyee day maanaam gis nga ko ñëpp ñëpp a mel noonu ñoom dañu global ni ñoom ni mel noonu noonu ñëpp mel te ñëpp meluñ noonu nag nit mën na am njuumteem waaye fekk melul noonu xàq la maa anta nekkuloo illa bashar lu dul nit mislana misluna nit nga ko bi doo malaayka doo jul nit nga rek wala de pour woon ko ne ko yow mii li ñu yëngal sa moo yëngal faati bi aayati indil ñu benn kéemaan rek mandarga bu wane yow yenente nga in kunta mina saadiqiina bu dee li ñuy wax dëgg la indil ñu mandarga buy wane ne yow mii lii nga ñu wax mooy jóge xaalu ñu ne ko haadihi naaqatun wala xaala mu ne ko mu ne leen haadihi naaqatun li ñuy tuddee gëlëm bi mu ngi noonu nag ñoom dañ ko laaj kemtaan ah, muy moo ji dem mu door ci xeer bi rek kii bi daal di génn si naa ko naa ko gis nga ko samin benn benn benn gëlëm boo xamante ne gëlëm bu ponkal am na ñuy wax sax ba ne boppam bi dafa doon laal niir yi ngir ponkalaay waaye dafa xaw a jéggi de bu baax fan lay doxe waaye daal njooloon na daal ponkaloon na ak daal waaw naakatu xaw yi am doole la woon bu am yaram la woon loolu. du kéemtaan amul yaay amul wax naan yi nga xamante ne dara juru leen mooy etu Moussa du doon dund mm-hmm. te dara juru ko wala de moom mii itam xàkk da amuloon bàyyi amuloon yaay nampul dafa dóor ci xeer bi rek xeer bi génnee si mu doon benn gis ma ko benn benn gërëm bu jigéen la woon nag naakatu mm-hmm. nee na la xaashiru mm-hmm. dafay bugg di naan nag wala bu shirbu yawmin maalum yéen ngeen am seen bésu bopp wala dégg ak xam nga jamono dañoo naan ustaas yi ñoom ñu aay wéeru koor buy jeex ñan ñooy aay ñoom itam ñu tey jii nii gëlëm bi mooy naan bu ëllëgee ñoom ñu naan gëlëm bi du naan waaye nag bés bi nga xamante ne ci la gëlëm bi di naan loo soxla demal ci gél loo ratt rek mu ñëw dëkk ba dañuy ratt bi doyal dafay ñëw rek ci koñ bi rek comme centenaire yi ñëw rek taxaw ñuy ratt rek kenn ku ci nekk ratt la nga soxla yóbbu sa kër bu ëllëgee nag aca gélém bi moom du naan bu ko defee ñoom ñuy dem di root ñoom ñooy gis nga ko denc ci seen daal yi denc ci seen balkay lu bon noonu la nekkoon ak ñoom kon lépp lu ñu soxla rek amatul daw yi dépense amatul wuti lenn lépp mu leen fay fekk waaye nag walaa tamasu bi suuy bu leen ko laal de fa yaxudakum bés bu ngeen ko defee dana leen dab azaabun mbugal yawmin aziim du fii bu ko defee fii ci àdduna foofu la leen mbugal bi di ñëwee lii mu ngi nekkoon fii ci Arabie Saoudite tey jii ne ñu waratu sool ñu xëy xëy rek jël gëlëm ba rek ray ko ban intérêt lañ ci am amuñu benn intérêt ci ray ko te bu ko buñ ko defee ci la mbugal bi di ñëw te waxoon na leen waaye fa am xam wax ñu rey ko waaye bañ ko reyee fa aat boobu naa di ñu tuddee ku daal te yenente bi waxoon ne baax idil baasa ashqaaha ka gën a nar a sànku ci ñëw mooy doon ne dina ko rey yenente bi ne ne ku daal ibnu mulki bu dee ñu njëkk ñi ku daal moo ci nar a gën a sànq bu dee ñu mujj ñi mooy ki rey Seydina Ali ibn Abi Talib alayhi salaam yaa ngi kon mu mel ni ñëw ñu jóg dem rey gëlëm ba faakallah bañ ko rey faas boobu xam nga kaw moo aadin kaw moo aadin yàlla dafa ne fa ahlak naa waaye jot jot na leeral ci beneen laaya nee na ngelaw moo ñëw ci seen kaw ngelaw saxara alayhim sab'a layaali boo demee ci Aflaatoon dafa wax naan ne dëkk ba daal dañ xëy xamatuñ la fay xew waaye ñu xëy xëy rek dëkk ba gisa mu mel ni ngelaw ba mu ñëwee pont yi la njëkk a daaneel daaneel tabax yi nit ñi ci seen bopp yàlla def ko nag pour won leen li ma man defuma ko ci bett leen parce que bu fekkoon ne def leen bett def leen mbugal boobu noonu waaye yàlla dafa jàkkaarloo boole leen li gën a nooy ci ngànnaayam mooy ngelaw hmm. ngelaw bi mooy ñëw rek di di sànq ba noonu lañu faatu ñoom ñëpp dëkk ba noonu la mottee ndox bi ñëw yóbbu ko lépp kenn gisatu ko ba tey jii noonu la yàlla alage waaye boo demee ci giir giir ba ni Samuud ñoom yàlla ni mu leen alage mooy ba nga xamante ne def nañu seen caacaay bu mooy rey gëlëm bi def leen wax nag kon salaasata ay yaamin toog leen fi ba ñetti fan loolu pour wan leen ne ñoom itam amoon kattan amoon doole hal ataaka hadiisu junuudi firawna wa samuuda dañu amoon doole won woon seen bopp yàlla dafa yónnee ci seen kaw benn genre ngelaw ngelaw boobu ñooy dafa ñuulal seen yaram yi bi ñu demee ba ngoon ñu gis seen yaram yi di ñuul te loolu la leen wax borset ba ba ñu xëyee ñu gis dër yi di xolleeku ñetteelu fan ba ñu gis seen yaram bi commencé di bànku ba xar kanam yi yépp dafa rasu woon dañ wax ne daf leen wëlbati ay golo waaye ñaawaay bi ñaawaay bi xam nga comme golo dafa ne mu wëlbati waaye ñaawaay bi bi moo rasu woon yaram bi guddi bu njëkk ba dafa ñëw ñuulal ñaareelu guddi bu ñëw di xolli der bi ñetteel ba yaram bi yépp rasu xam nga ko xamante ne dara bi mel na noonu xar kanam bi mel noonu yëpp rasu noonu xam nga golo boo xoolee lépp rasu noonu ñu ne ñii ne la comme ay golo noonu la leen yàlla teg ñu jàkkaarloog mbugal bi te ci tus ci ñetteelu fan ba nag kenn mante génn noonu la leen borom bi tabaaraka alagi moo tax mu ne fa axadahu alazab mbugalu yàlla ba ñëw daanu ci seen kaw yow Muhammad itam nga ñëw di woote ca la ngay woote mooy lan mooy mbaax ak njub loo leen wax bu leen topp ñoom abu jaali bu leen topp ñoom abu sufyaan waaye naka ngeen def na ngeen ma topp man pour mën a am ci ngërmande yàlla inna fi daalika nekk na ci lii la aayatan liy wane ne yow muhammad yonente na waaye wa maa kaana nekkul ak sarum la gën a bëri ci nit ñi mu'miniina ñoo xamante ne gëm nañu message bi nga indi wala message bi yonente yi indi kon la ko dalee ca Seydina Muusa di ñëw ñëw ba ci yonente bii nga xamante ne mooy Seydina Saalih benn kat la ñuy wax fattaqullaha wa atiyoon Seydina Muhammad mooy même message bi moo tax muy wax mursalina parce que saalihun boobu yonente la ci ñun moo tax ñu ñëpp ñun ñëpp ñu gëm yonente yi laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli ñun tey jii nii dañuy roy ci Insa Insa yonente la bu yàlla yoon ñun dañ koy gëm Moussa yàlla daf ko yónni ci ñun parce que ñun laa nufarriqu bayna ahadin kon la insa wax gaayam yi nam leen concerné noonu la ñu concerné ñun yaati baada ismu ahmad ñun bokkuñ ci ci bokk kon naka noonu itam bi saalihu taxaw fa taqullaha wa atiuni def ñu concerné mooy ñun dañu war a bàyyi ñooñu topp ci moom kon roy ci moom maanaam mel ni moom buñ ko defulee bu boobaa la dal ñee moo ñuy dal mooy kazabat aadum al mursalina bu boobaa ñun gëmatuñu insa gémmatuñu lootin eh, huudin eh, nuuhin eh, ibrahima muusa buñ leen toppalee ci lii ñuy wax fii rek bu boobaa ñun gëmuñ leen kon en tant que ñun ay jullit bokk ci xeetu yonent bokk ci jamono bu mujj bi nga xamante ne ci jamono yonent yi ak jamono yi jiitu yépp amoon na ay musiciens parce que alquran lool la alquran dafa ñëw boobu leen question yi rek mu leeral ko ayaati bayinaati parce que def leen jaaxaloon woykat ak yonente ak mu mel noonu ak naka la ñuy def woykat yi tey jii mu neex la mu naqari woykat yi ñu ci sa biir kër mënoo ci daal mu neex la mu naqari la woykat yi ñu ci sa biir kër sa téléphone ci biir mënoo ci parce que li ko waral mooy ne ñu ngi ci tele bi ñu ngi ci journal yi ñu ngi ci rajo yi ñu ngi ci fepp la kon mënoo leen daw en tant que tey ngay dund ci jamono naka la war a def ak ñoom nag moo tax saa bi wàcc mooy sorootu shora ndaxte tey jii dangay xëy xëy gis sa doom sa doom laa wax de dégg ko benn baat bu mu wax baat bu virgule bu ñàkk teggin fan la ko déggee ci ñoom ci ñoom dangay gis xale bu ndaw boo xamante ne am na wooyu bu muy répété yow dangay tiit lii fan la ko jële woykat yi kon woykat yi fépp la ñuy te xale yi xale yi tey jii nii bu fekkee ne woykat yi taxaw na mooy rajo yi nii rek gisuloo boo demee ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy woote pour nit ñi ñëw boo demee ci politiciens bu ñu dugg see ci dëkk bi tey jii bëgg ñëpp ñëw. bala ñuy taal ci saa si. kon yonent bi laay am lu mu doon mën a xayma keroog